ñu ngi la gis fële ca Ukraine nga yore ab sondel pourtant day suñu gone yi ñàkk seen bakkan ñun ñi seeni day day juróom-ñeenti weer juróom-ñeenti weer lañ leen ëmb ñi waa Ukraine ña leen seen ni yaay bëggee foog noonu noonu la ñu bëggee suñu doom yi ñu boom fii waroon ngeen waroon nga leen a yëkkatil sondeel fii de balaa ngaa dem ko priorité bi fii la Sénégal ndax dëgg yàlla boo demee di àtte foofa duñ la ko wax de waaye danañ ko xalaat ah kii moom réew baa ngay tàkk mu naan ñun lay àtte si fii te moo àtte boppam foofa duñu la ko wax nag ndax ab président président la république la lay jox cër jox la tapi waaye ñoom ñëpp tubaab yëpp loolu la ñuy xalaat ne ñëwoon nga lijjanti fii Sénégal fexe ma réew mi nga xam ne joxoon nañ la ko ci anam yu sedd yu tedd yow nga bàyyi réew bi ci loxo yi nga xam ne ñoom la sénégalais yi tànn pour ñu jiite leen ñi nga xam ne nag ñoo def ñaawtee fii parce que loolu kenn du ko musa kenn diggante fukk ak juróom-benn ba ñaar fukk ak ñett loolu ñàkk ci seen bakkan ñooñu moom nanga teg commission d'enquête indépendante ñu xam ñana def ñaawteef yooyu ak ñana leen ko sant monsieur le président de la république boo bëggee jàmm feuille de route jàmm nga feuille de route jàmm mu ngi noonu kon ña toog ca sa jaloo bi nga xam ne dialogue ngeen ba pare yàgg na ñépp xam nañ ko waxoon naa ko fii waaye boobu ñu jox leen loolu comme yóbbal bu ko defee sunu réew mi sunu réewu Sénégal génn ci situation bi nga xam ne ñépp ñaawlu nañ